ñun nag suñu ministre Mamadou Talla mosul jóge mosul jël dooleem ak yitteem ak kattanam si benn bokk yaakaar toujours foofu rek la ko def kon nag ñun le président Macky Sall ak le ministre premier ministre suñu candidat tey 2024 vraiment def ngeen prise bu ngeen xam ne prise bu rëy la am nañ si vraiment mécontent mécontent yu métti si suñu côté parce que demee na nu mu warewul demee donc ñun ndaw département de Kanel ñu ngi nii ginnaaw ministre Mamadou Talla ñu am métit ak ñaaw ñaawte trop ci président de la république lu mu def ak notre candidat Amadou Ba dañoo bëgg xam lu tax président di defee lu mu def nii encore même les jeunes ñu commencé woon di def inscrire euh, ci liste lu ñuy def inscrire si liste bi dañoo parrainage bi si liste parrainage bi dañoo mer tey ci suba ba ñu xam ne dañuy arrêté ci lu ñuy def waa ndaw Benno Bokk Yaakaar bu département de Kanel même suñu ministre bu nangoo décision bu président Macky Sall def ñun nag waa ndaw département de Kanel ñun duñu ànd ci loolu. L'éviction du ministre Mamadou Talla qui est lam du camp de la majorité nous fait très mal. Parmi les maires que contre le département de Canel, les neuf maires sont avec lui, plus le président du conseil départemental, les hauts conseils des collectivités territoriales, les hauts conseils euh, économiques, sociales et environnementales. À la veille d'un rendez-vous aussi important et crucial qu'est la présidentielle 2024, opérer ces changements brusques et risqués sape le moral et l'engagement du grand groupe. Certainement, à ceux qui, contrairement, autant pour moi, contrairement à ceux qui boycottent, défient et fait chanter le président dans sa gestion du pouvoir. Maintenant, si le président Macky Sall et le candidat Amadouba jugent politiquement que sacrifier la grande majorité acquise et fidèle contre une minorité révoltée est la meilleure option, qu'il ne soit pas étonné du résultat de son titre foncier dans le département de, de Canel. En tout cas, même si le ministre Mamoudou Tala a accepté avec courtoisie cette décision, nous, de notre côté, nous ne pouvons nullement pas assurer que toute la base politique suivra. Monsieur le Président de la République, nous attirons votre attention Ne soyez pas surpris de voir la majorité du département boycotter l'élection présidentielle. La preuve, les jeunes ont gelé toutes les opérations de parrainage parce que cette décision est inadmissible